internet yu Africa 9 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen wax ne rek dal leen ak jàmm ci bile waxtaan bu ñu fas yéene sekk ak sëñ Aliou gis ngeen di fan yee ah, invité woon nañ ko fi mu nekk sëñ boo xamante ne ni wàllum seet moo ci teg tànk lépp lu la mës a wax du dañ euh, gis nañ aussi mbokk internet yi commentaire yi ñuy gis lépp ah, di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne continuer la ngeen abonné ci Africa 9 TV ndax moom mooy chaîne bi joxe xibaar yu wóor yi te wóor sëñ Aliou nag nekk na sëñ boo xamante ni non seulement seet naa ne nag moo dàq seet ci Sénégal waaye tey dinañ waxtaanee mbirum seet teg ci mbirum actualité li ko dalee euh, Serigne Bara Ndiaye waa aussi Mara Niass mi nga xamante ni ni euh, ki nga xamante ni moom moo di euh, sëñ Modou Fada daal dina koy attaqué moom ak Mara Niass ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Sonkole yi wala sax ñu ne Diomaye président waaye fas na ñoo waxtaanee li nga xamante ne moom moo di situation actuelle politique bu réew mi ñaata candidat moo am. ci parmi les 19 candidats loolu nag waxin la ci biir wax ñaata moo am ci diggante ju fukk ak juróom-ñeenti candidats yi ñu tabb loolu yëpp fii lay xewee ci bile waxtaan sëñ Aliou ñu ngi lay nuyu. waaw alhamdulilah alhamdulilah alladi hadana li wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah wa salaatu wa salaamu ala rasulillah gannaaw sant yàlla ñu ngi julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di sëlmal ci moom. waaye ñu ngi nuyu tamit képp koo xam ne euh, internet yi nga xam ne yëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel fii ci Africa 9 TV muy site bi site bu mag bi macha allah waaye afa ñu ngi dem di nuyu suñu sëriñ suñu sang Cheikh Mahi si euh, Niass Medina Baye di ko ñaanal yàlla fan ak wér dem Touba nuyu suñu sëriñ Cheikh Mamadou Mountakha ñaanal ko yàlla fan ak ak ak wér dem Tivaouane nuyu suñu sëriñ xalifa général des Tidianes ñaanal ko yàlla fan ak wér yaakaar naa ne ñett ñi ñu leen tuddee yóbbaale na mbooleem kilifa diine yi te tamit di nuyu tamit mboolem kilifa aada yi ak képp koo xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel ci eh, eh, Africa Neuf TV tamit yow tamit di la beral sa nuyoo bopp. <laughs> jërëjëf sëñ bi mu ngoog nekk koo xamante ni naam daal dinañ koy ràññee ci mbirum seetam ci question boobu sax la ñuy njëkk ñëw ndax nag sëñ bi comme lu ñuy wax rek. Mhm. da ngaa yàgg wax ne que ne yaa dàq sa Sénégal ñu gis commentaires yi fépp. Mhm. loolu lan moo ko waral. Mhm. waaw xam nga euh, xam-xam dafay leer dama yàgg wax ne xam-xam dafay leer man da yag dama yag wax ne tamit sama niveau set dafa dépasser comme ni serigne sama mbokk serigne su bëri diko defé so waxé ñu ne la euh, da ngay yakar muy tass lolu dafa am dafa am dafa am ay mbir yo xamné ne naturel la ci mbolim nit ñi comme ça nit ku yalla bind rek da ngay yakar muy tass en tant que président. kon mbirum set ya. ni nit ki di jangé am ay diplôme. non la mer ci mbirum set ay niveau niveau la non lañ ko non lañ ko wara jangé deg da ngay yaakaar muy tass lool ñëpp lay dal parce que tay képp ko gis rek mom dafa yaakaar muy tass leg leg da ngay tok sa yaram bi di tayal lool ñëpp lay dal tout le monde képp ku nekk ya, eh, eh, eh, ni da ngay tok sa yaram di tayal yaa ngi deg nekk nga nit nit bo xamanteni ah, ah am nga ay kayit yooyu liggéey yoy lijjanti su nekké ya, da nga am 30 ans motax so xolé ñu ci bari dañ naan la ñaat at nga am yaa ngi deg nga wax say at su ko defé su nekké da nga am 30 ans wala 20 ans wala 25 ans ñu ñu la amna na ay am ay papiers yoy lijjanti normalement nit su démé ba am 25 ans jëm 30 ans normalement dina la jënd ay papier kon ak euh, ak ak yu melni ak yu melni ku ku ku ndol ke wala ku xonk mais yoy yep dafa nek lo xamanteni nature la mm-hmm. comme ça nature la ci dundu doomu adam kon lolou du set lan moy set mom moy nga fexé ba wax wax nit ki ci jamono bobu mom lan la dund lan mooy seet nga fexe ba wax nit ki ci li nga xamante ni moom moo war a ñëw lan mooy seet mooy nga fexe ba wax nit ki ci li nga xam ni dund na ko jamono ci gannaaw kon seet ñetti baat la bii nit ki ci la toll bii mooy bi nga xam ne moo nekk ci gannaaw bii mooy bi eh, eh, bi nga xamante ni moo war a ñëw kon ala kulli ñun nag li nga xamante fu ñu suñu ñuy seet képp ku ñuy seetal wallahi wal quraanil karim bi nga xam ne lépp lu luñ la wax lu wér la mm-hmm. Mm-hmm. kon sa mbirum seet dafa daal di tënk si le passé le présent et le futur. Mhm. mais mu mel ni kon sa yow da nga su ma jàngatee say wax daal yow sa seet buñ ko doon xayma ci école kon yow am nga ci maîtrise. tey tey wàllu wàllum seet moom yàlla dogal na moom man lu ma yàgg wax rek wax ma Sénégal parce que mhm. gars yu nekk fii di di di di seet lu ñuy wax moom euh, loolu ci ci ñëpp la nekk waaw ah, mais euh, Afrique man gisuma ku ma fi ci seet. surtout nag ci xam-xam bi nga xam ne moom la ñuy wax xam-xamu romb xam-xam romb suñ ko waxee loolu beneen xam-xamu seet la boo xamante ni mën nañ cee def ay ay émission te du jeex. mën nañ cee ñamal as tuut. waaw xam-xamu romb ko waxee moom mooy xam-xam bi nga xamante ni euh, euh, yàlla moo ko wàccee ci yonentum mm-hmm. muy yonent yàlla Idris. yonent yàlla Idris moom mooy mooy yonent bi nga xamante ni moom la ko Jibril jàngal. Mm-hmm. boo ko Jibril jàngalee tamit ba mu ko ba mu ko jàngalee ba mu ba Jibril njortu ne. Mm-hmm. yonentu yàlla Idris mokkal na xam-xam bi jour dafa ñëw mu ne ko damaa bëgg nga seddal ma kan mooy Jibril xam nga euh, ñëw na ci téere borom xam-xam lu bëri Jibril su daan ñëw ci yonent yi dafa am melukaan bu mu daan indi muy mm-hmm. melukaan nit comme yow yaa dégg ba ba mu tombee xool mu ne ko su nekkee ne yow yow doo Jibril kon kon Jibril amul Jibril wax yonent yàlla Idris na ko sadaxta yaa Jibril mooy wax nga dëgg kon jàngal na ko xam-xam bi ba mu xam ne lii léegi nekk na ci moom xam-xamu seet tamit noonu la kon alaa kulli haal ñun euh, li may wax rek képp koo xamante ni woo nga ñu ci ñu dimbale la parce que nit ku nekk. sag weer nit ki war naa seetlu doon di benn yoon. naka ngay seetee sëñ bi am na ñoo xam ne dañ naan la tey jox ma sa turu sa turu si cité nga ko. Mhm. am na ñoo xam ne dañuy tomb ci suuf. Mhm. ñii dañuy def petaaw. ñi dañuy def listikhar yow sa seet ban genre seet la. man dina def listikhar parce que listixaar yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam moom moo ko digle. mais tamit dinaa seet seet boo xamante su nekké ni ki nga xamne dafa nek distance dafa nek Europe wala mu nek ci benen dëkk. bëgg ma xolal ko mu woote ci numéro téléphone dama naan ko futul sa jë rek yónnee sa jë. jë kessa kessa kese futul sa jë yónnee ma wax la lépp. te ding ko gissal tak wa yow loolu kay laaj ko gars yow futul sa jë rek yónnee ma wax la lépp lo xamne nek na ci yow sëñ Aliou loolu la te te te te du ma laaj xam nga léeg-léeg nga ngay seetloo nit mu lay coytu naan la ndax yow dafa am di di comme ça bëgg yow li nga koy wax. Mhm. moom mu waxal loolu man demee wu ma. baa ni ma xoolee nii man dinaa tukki. ndax ndax ndax ni ma la xoolee. <laughs> ndax di tukki. waaw mais loolu xam nga nekkul waxu fii nii li nit ku nekk rek li ngay li ngay seq ak moom ci maman boobu mu bu soxla ko ci waxtu boobu noonu ci waxtu boob nga koy seq ak moom. tegal foofu sa baaraam. Mhm. nga xam ne dañuy wutiwaat leneen rek dolli ci moo yi sëñ Aliou mu mel ne yow doo def mbirum seet kese dangay ngay faj. Mhm. dangay ngay faj genre dégg naa jigéen boo xamante ne dafa toog amul doom ak lan ak lan ak lan. waaw bëri na bëri na bëri na ci yi nga xamante ni dañ ciy yëngu. Mhm. parce que euh, léeg-léeg am na jigéen ñoo xamante ni dañuy toog bëgg doom te duñ ko am ay dégg soo demee ci alxuraan yàlla. بام بام بام بامي جانغال سي استغفار نانا فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويبدكم باموال ياغ ديك وبنينا ماي لما سوخلا سي اي بي موي وبنينا ماي لين اي دوم كون باتي استغفر الله رك نيون يون بو خامتيني سو نيكي نيت كي سينا لو ياغ امول دوم امنا يون بو خامتيني سو نشي جوفلانتي موم ان شاء الله تعالى دينا ام دوم مي مي نياك ام دوم دا فام يوكاي وارال كوم نوماكاي واخه am na ñoo xamante ni wàllu àndaale moo leen koy teg ba ba tax na luñ ëmb mu yàqu. yaa dégg am na ñoo xam am na yoo xamante ni ay liggéey la léeg-léeg nga sëy si kër sa goro wala sa njëkki def loo xamante ni ne diw du fi jur doom. kon loolu tamit am na. mais tamit am na loo xamante ni feebar la boo xamante ni du nekk feebar boo xam ne sëriñ moo ko mën a faj mais hôpital moo koy faj. mais yow ku nit ku ñëw ne la aw ma doom da nga koy xoolal. bu nga mm. gis problème nga doog ko faj. loolu mooy yoon parce que tey su yow soo indee si tissu pour pour yóbbu ko si téer pour mu ñawal la. Mm-hmm. balaa mu lay ñawal lu jot ko il faut que mu nattal la. su su su su su la jëlee les mesures. Mm-hmm. ci lay doog xam nag tissu bu tissu bi nga indil ba xam dina mën a di nga ci mën a am taille basse wala di nga ci mën a am ndoket wala nangam seet comme noonu la rek. maa xam nga tey lan mooy problème mu majeur xale yu jigéen ñi. Mm-hmm. am jëkkër. waaw Mhm. loolu baa mën nga ci dara. loolu kay moom ñu ngi ñu ngi ceeg loo xamante ni moom képp koo xam ne defal nañ la ko doo génn weer bi te déggoo alxayri. ah su ma la déggee maanaam lamb moo jeex ci Sénégal. dafay des rek xanaa xanaa bu fekk xamuma rek. Ah, kon mhm. jatu jugal gaaw. Mhm. léegi bu ñu jugee ci mbirum bi nga xamante ne nii moom moo di mbirum seet ak liggéey yi nga xamante ne ni yaa ngi koy def. Mm. dañuy dugg ci li nga xamante ne nii moom moo di actualité. Mm. sëñ Aliou macha allah ñu gis ne nii yàlla gannaaw bu mu la mayee ci ah xam-xam-xam boo xam. non non non non ñaari candidat moom bul bu wax yenn candidat yi yow waxal ñaari candidat rek. yow bu ci diggante ñaari candidat yi kon. <laughs> xam naa ñenn ñi dinañu mere <laughs> mais mais mais. ñaari candidat rek ah loolu de la wax. ñëwal ci jàngat boobu. comprendre nga euh, tey suñ suñ jàngatee tuuti ci wàllu Ousmane Sonko. ak Diomaye cote popularité bi ñu am. waaw bu foofu sax yow yow indil Sonko rek parce que son Sonko mooy acteur principal bi. Mhm. tey euh, am na loo xamante ni naturellement yàlla moom moo koy defal nit. Mhm. moom la ñuy tuddee xabul. Mhm. yàlla moom mooy def nit ki nit ñi bëgg ko. te su ko nit ñi bëggee dañuy dañuy wax ne mandarga mandarga xëwal dañ koy xool ci ñaar moom mooy ki nga xamante ni jigéen ñi dañ koo bëgg lool kooku ay mbiram mën naa jëm kanam. Mm-hmm. yaa ngi dégg ak ki nga xamante ni xale yi dañ koo bëgg dafa am yàlla nag yàlla. Mm-hmm. xamul lu war lu jot la xam tey Ousmane Sonko. Mm-hmm. jamono mën naa dox ba yàlla dénk ko réewum Sénégal. mais su soo defee jàngat ci jamono ji ñu toll nii loolu nekkagul loolu loolu amagul mais jamono nag mën naa dox. Mhm. ba Sénégal su Ousmane Sonko toog fi yaa may dégg. Mhm. mais dama dama lay indilaat même même wax bi rek. Mhm. tey président Amadou Ba li ko topp lépp su génnee ci àll bi muy biir Dakar ba ci ñi nga xamante ni ñoo ko bëgg ñëpp. ay respons du ma sax ay ay responsable lañ te tamit ay kilifa la ñuy doon kenn kenn ku ci nekk yow yaay yëkkati sa carte yaa ngi ah, seen seen carte yi amuñ ko ci at yi yëpp mais soo xoolee ba ba ba Ousmane Sonko génnee ba ba ba ba ba président Ousmane Sonko génnee mm-hmm. commencé yee yee xale yi mm-hmm. comme ça wax ci réew mi. gaay yi càcc gu ñuy càcc ngi dégg wax ci walu pétrole bi walu gaz bi wax wax wax wax wax wax wax wax wax mhm. ci la gaay yi ya ngi dégg waa kay ci lay commencé yee xelu ndaw ni digënté 2020 jëm ba 2024 bi ci leen ndaw ñu commencé génn dem outil carte d'identité té ñu ci bëri sen carte d'identité no votant la lu ma lu la wax ni nak jangat la comme luma lu la wax ni mhm. li moom mo am mais nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii ah gars yi nu ñu jàppee ne de noonu la yombee du yombee noonu de. est-ce que mën nga njort que di deuxième tour dina am. te te te te nag kaam xamal benn affaire. daal waaw te deuxième tour suñ suñ fa àggee. Mm-hmm. ñeneen ñu ñuy tuddee ki yeneen candidat yëpp. Mm-hmm. li may wax nii nag. Mm-hmm. na ko takk nga jàpp ko. waaw yeneen candidat yëpp. kii la ñuy sotti wax Amadou Ba la ñuy sotti. Amadou Ba wala Diomaye. la ñuy sotti. sëñ bi yaa ngi wax non nan.